Thank you Amal Cooperation Suarel Des spécialistes en vente de terrain location immobilière travaux publics nek ci diwanu Sénégal waaye ay bànqaasam wër aduna. moo xam yaa Gambie Mauritanie Mali ak bép dëkk bu nek ci sous-région ak fo munti nek ci 14 régions terrain ak fo ko bëgg ñu jaay la ko tabaxal la ko lijjanti ko mu and ak ay kayitam ba mu yem Kayitu lèr nak la wax So bëggee ñu défal la ce plan béton armé béton armé 3D 2D terrassement ci beaucoup bëggé. yow dal da ngay tëdd sa kër wax ñu fa nga bëgg sa terrain ñu tabaxal la ko ko jox la sa ay caabi defal la étude de sol defaral la sa projet gunge la ba nga am financement ndax Jamal corporation Suarel dafa ànd ak équipe bu complète ay plombier menuisier bois menuisier aluminium ay maçon ay peintre ginnaaw bëgg a confier sa liggéey keneen te amoo ci lu la neex so jokkoo ak ñun ñu modifier la ko ba mu mel na la gënal defal la béton armé ñi tabax ay jaka juma école wala dara yenn mairie yi ak collectivité locale yi ñi ngi leen di talal suñu ay loxo ci marché projet ak programme bu ngeen munti am di la jox sa ay caabi ci délai bi ñu wax ante ak yow ñoo ngi fii ci diwaanu Mbour château d'honneur ci ginnaaw tribunal bi nga mën ñoo woo ci 77 034 26 90 76 300 00 84 wala ci 77 289 45 45 wala yow mi am sa suuf te mu nekk ci bërëb bu commercial te amoo moyen yoo ko tabaxee daan ci waxtaan tabaxal la ko ba nga mën caa dëkk ginnaaw bañ ko waxtaanee ba signé ko ci ay contrat ñu yore seeni kër wóolu leen ci di leen ko dénk ci wàllu location yow mi nekk bitim réew li nga doon xalaat du ay gént mën naa nekk ci boo jokkoo ak waa groupe Jamal coopération suarel yow mi bëgg ay tool ngir mën na bay ak foo ko bëgg ci Sénégal dañ la koy lijjantil ànd ak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

wa quwwati di jaay abduli basar adim salaatan wa salaaman abad alay bi ali wa bi ixtada mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziyaara di leen balaaq te di leen balaaq di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla boole jégal ci barke weer bi ñu nekk muy weeru safar nga xam ne ñu ngi ci biir weer bi lépp loo xamante ni si rek jëf nañ ko ci ñaan nañ ko ci yàlla ko suñu borom nangu te ful ko nuyoo bi nuyoo léegi nag ñu ngi koy nuyu bépp kilifa diine bépp kilifa aada bu ne ci réew mi rek ñu ngi koy jottali suñu nuyoo jaar la ko ci al xalifatul am sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général kullu mu jottali nuyoo boobu mu law ba ca bépp këri diine yi nuyoo gi nekk nuyoo bi gën a tedd ci nuyoo yi muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bu ko defee niñ ko tàmbalee woon ca njëlbeenu première safar di dundal weer bi ci ay xeeti waxtaan yu jëm ci safar ndax bu ñaa safar xel yëpp dem ci jàmbar ju màgg yu jàmbaar islaam si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul bu ñu safar rek xel yëpp dem daal di ci jëmale ci moom joroon nañ cee tàmbali nag ay waxtaan comme ni ñu ko waxee woon ca tàmbali maa ba waxtaan yoo xamante ne sii li ci ëpp rek dañuy xëri tënk li ñu ëpp li ci ëpp rek dañuy xëri tënk ndax sëñ bi bi muy doog a jóg ba fa mu yem xajul ci weeru safar wala sa xajul ci ci ci at bay xati safar daanaka li ñuy bëgg wax dañ ci xëri tënk rek comme ni ñu ko tàmbalee woon lu ci dañuy tënk japp na yiñ mëna a yiñ mën a war indi rek ñu indi ko jotoon nañ ci ñëw nak ba wax sëñ bi bam ci aduna at bi mu gënee ci aduna ak dalum jangam ak fam jot jaar ci jang ak ba way juram aduna namu taxawé won ak lañ ko proposé won ci walum bour ya ak lam ci tontu won yépp waaye ba démé ba jot ndigalay woté it woté na ba mbolo mi ñi dem ñi tok ñi ci ëpp dem waaye mu soppi mbir mi ñu jóge ci halu tadris jëm ci halu tar euh, tarqiya ak tarbiya yar ak yeggale seen borom bolé ak jang mi nga xam lañ doon jang ba ma leen woon kii xam ne jàng rek moo ko fi indi ndax mu xooli feneen fu mu mën a jànge waaye ki bëgg lañ bëgg nay doxee na ñuy doxee wax jooju la leen waxoon muy xutbaam ba ba mu ca jugee loolu yëpp am mu commencé leen yar ci ay xeetu euh, façon ku nekk ak na la la la nga yittewoo mu jëfalante kook yow ñii mu leen di liggéeyloo ñii mu leen di sikarloo ñii mu leen di jàngal xasida lu bari ñii mu leen di jàngal alxuraan ku nekk daal ak la mu nekk nga nekk ci ak moom mu la koy tàggat waaye ñu doon jànkoonteel ay jànk ay ay ay xeetu kii yu métti ndax daanañ ci yegg di leen ci buntu xataal di leen ci naqaral di leen ci métti daal ngir ànd gi àndoon ak sëriñ ñoom mag ñooñu ba sëñ bi doon na leen dalal ci fàttali leen saxaaba yi rasul yi nga xam te ne si ñooy seen bàyyi ci diine daj nañ lu gën a métti li ngeen doon daj daj nañu loo xam ni dajoo ko leen xaaj ba te ñoom dañ ko daan muñ ngir yaakaar ci yërmande yàlla am ci tagg suñu borom ci alxuraan daana leen defal it ne leen doy may fa ñu mujjoon a yem bu ëllëg yoomal xiyaam bu yàlla ne yow ma nat yow ma nat kullu unaasin bi imaamihim bis yoomal xiyaam bu jotee ba yàlla woowu mbooloo mu ne ak sam njiit war naa leen a doy man bu ma ñëwee représenté leen foofu man loolu war naa leen caa doy te noonu la mi war nañu caa doy ndax si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ku xam ak ku dégg histoire am ak ku jàngay xasidaam ak ay bindam xam ne lu lul yàlla rek yitteelu ko lu dul yàlla yitteelu ko commencement ba fin yàlla rek moo ko yitteel moo ko taxoon ni ak rasulullahi mi nga xam te si moo tax ñu sàkk jaam ñëpp kon ci loolu lañ nekkoon mu leen daan defal ci loolu te it na wax na dëgg it moom rek war na nañoo doy ci loola allah yomal xiyaam mu taxaw ñu woo mbooloo mu nekk seen jiit moom mu ñëw taxaw suñu kanam wuyul ñu loolu ndam gënu koo rëy ba nga xamante ne si nag lor yooyu noonu commencé naa bari ci nit ñi ci Mbàkke Bawal ñu commencé lor gi ñu leen ñu leen di lor muy gaay yu baax yi ak gaay yoo xam te dañoo xaw a mel ni man te gay ñu muy gën di yokk leen di naqaral di leen buntu xatal sëñ bi nag ci la génn daa di sanc dëkk bu ñuy wax euh, daaru salaam mu nekkoon ci kanamu Mbàkke Bawol googu ñu nekkoon ci penku bi ba yooyu bëree ci moom rek gaay yi ñu baax ñi xawan ko ndax ni ngi gisee sëñ bi doxani ak gaay ni ñuy doxé mu am ko lool mu leen di tarbiya mbolo mi di gën di bari ñu mu daal di génn nak tanti dëkk bi ñu wax daru salam nga xamné mom la ñëk a ci ab dëkk bu mbo xamné mo wax ko bopam ndax sëñ bi fu mu da nekk yëpp dëkk yëpp ay mamam ñoko ko wala way juram motax ba yoy amé mo sanc ci kanamu dëkk bobu di Mbàkke Bawal tuddé ko Daaru Salaam da fay tuxu ak njabot gi ci benu dasas 1304 tombe miladia 1886 biñ nekké ci lolu mu nekkon ci weeru safar bi nga xam la la tombeloon muy safar bi weeru safar bi ñu nekk mom la lom señ bi lolu yépp da ko def ngir gëna sori nit ñi ngir gëna mëna mën a jaamu yàllaam gën a ndax nit ñi jaxoso ak ñom Nak sëñ ba bañé won ba séparé mbolé té niñ ko niñ ko niñ ko jallon bi passé loolu la cey bañ mu séparé len ngir loolu nga xamanteni fi moko moo ko gàllankoor ca ca dëkk bobu nga xamné ñu ngi koy lor loranga yañ commencé bari ci mom ba loolu amé nak mu daal di sanc dëkk bi ñu wax légui muy daru salam ci at bobu mbir mi nak daf melni dafa gëna yok man ni loranga yi ñu lor dafa gëna bari mu dem dem ba at la fa am lu tomb lu ci at rek la fa am doxinam señ bi ci daru salam ak ci mbollem goxi digëndi di ci yoon di jup di muy tarbiya ndongay di len tarqiya di len yegal ci sen borom ñu daali di ñom ndongay mag ñi daali di lool dan sen biir di diiso mbolo mi gëna bëri xéewal yi it gan faa bari lool ci ci ci ci dëkk bi mbiru sëñ bi daal dama dem ba law ci fépp nga xam ne si ñëpp a ko commencé di dégg di ko bàyyi xel ba loolu amee nag mbooloo mi bariwaat na tey ñu leen di gàllankoor mu ngi commencé di gën a bariwaat te sa looloo taxul mu génn Mbàkke Bawol ba dem Daaru Salaam te loolu taxul gul mu saafaraw ba tey ci la sëñ bi sancaat dëkkam biiri tuuba da ko sanc ci kanamu daaru salaam ci côté ndeyjoor bi muy penku bi fa la ko sanc Tuubaa bi nga xamante ne si tey fa la ñuy màggale dëkk bu sell boobu moom ne xarasaha moo moom sëñ Tuubaa wax yàlla suñu borom moo ko aar muy suuf su sell suuf su màgg goo xamante ne si dundal sunna ak jaamu yàlla rek moo taxoon sañ bi sos ko loolu mu ngi am ci mujjantalu ama xaysas 1315 mbëg 1888 ci miladiya wala boog 96 muy wasas ba loolu amee mu sanc tuubaa googu daa dafay dem ak lenn ci njabootam ndax lenn ci njaboot gi gane si woon nañu àdduna ku ci mel ni ma Cheikh Mouhamadul Moustapha muy nga xam ne moo njëkk a nekk xalifa euh, xalifa ginnaaw sëñ bi moo ko wutu moom ci Daaru Salaam googu la gane jamono ak ku ñuy wax seex Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke ñoom it genn si nañ àdduna ak ku ñuy wax Cheikh Mouhamadul Amin mi nga xamante ne si moom euh, Touba la gane àdduna sëñ Baara bu mag moom nga xam ne ci histoire moom rek mooy doomu sëñ bi nga xamante ne si moo juddoo Touba moo fa gane si jamono radiyallahu anhum yàlla na seen sama boroom yokk leen xéewal ñoom gane si nañu jamono ci li gën a siiw ci histoire ñoom ñooñu ñu ngi ci bi sëñ bi saxee Touba nag. ci ndëkk ba nekk fa ndax ne nañu kër gi mu fa defaroon bu dee tuulan waar daan muy longueur ak largeur bi bii tollu woon na ci quatre vingt dix mètres quatre vingt dix neuf mètres bu dee ci largeur bi nekk ci toll ci soixante kon loolu kër gu yaatu woon la waaye ca lañ nekkoon waaye terewul sëñ bi bi mu nekk Tuubaa yëpp parfois yi daan na génn. di nekk ci yenn gox yi yi nga xamante ne fii ñoo nekk ci ci Touba lu ci mel ni que euh, fi ñuy wax Daaru Minam ak fi ñuy wax Daaru Rahman ak fi ñuy wax Daaru Xudus nga xam ne yu siiw la ci Touba googu daan na fa nekk bu nekkul ci bii rek ma nga ca bële bu nekkee tey fii suba ba nga fële fa la daan fa la daan nekk daal di di wétal boroomam ak taalif ak ay jaamu yàlla mu ko fay def ak nawaafilam waaye li ci mën di xew diggante boobu mu naan baagante kenn mënu laa wax. ci lam fa la la la digganteem ak digganteem ak boromam lam ca lam ca daan def ak li nga xam te ne si mooy digganteem ak gaayam yi lam daan daan yokk ci xeetu tarbiya lam fa liggéey ci ay xeetu tarbiya bari na bari goo xam te ne si kenn mënu koo tënk lam fa dem taalifit ay xeetu téere tarqiya bi ak tarbiya bi gën faa yokk gën faa bari mu ne la digganteem ak buur nga xam te si dañ daan ak seeni seeni seeni ministre ni nga mëna wax ci jamono ndax ñom dañ daan bayyi buri dem di wuy ji sëñ bi di jébbalu joxe seen bop loolu daan naqar yenn buri ba tax na bi loolu amee mu leen di mu ñu ci bare bare bare xawoon na mel ni ku commencé bi mel ni da leen a commencé jaaxal ndax seen mbooloo ñu ngi koy fàq di ko wuy te sëñ bi loolu tamit yiteelu ko woon li ko mooy yàlla ak yonent bi ak rasulullahi kese ba ñu wax ba ci benn xas bi muy euh, benn xas bu bind da ci tàmbalee allahuma yaa xudduusu yaa karimu wala allahuma yaa xudduusu salli wa sallim wa barik ala man nawaytu an ahbudaka bi xidmatihi li waj xeeral karim fii tubaay wa fii daari salaam wa fii daari minan wa fii daari xudus mu ne yàlla yow mi nga xam te ne si bokk na suturi al xuduusu yow yàlla mu tedd mi ma yàlla nga barkeel ki nga xamante ne si dafa yéene jaamu la ko ci liggéey yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci këram gi di Touba ak këram gi daaru xudus ak daaru minam kon loolu rekk xuy teewul waaye du lu ñu foog allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa nabiyina wa mawlana ma sallim jërëjëf suñu borom jërëjëf suñu borom jërëjëf suñu borom jërëjëf suñu borom jërëjëf suñu borom suñu borom ba kenn ku ci nekk defee ne liggéey bi sëñ Tuubaa bi séqoo ko kenn te doonoo ci dara ndax ba mu ñaan ku taxaw ci wetam di wax amin sax amu ko. nanu gore. sëriñ bi amut morom de. amul morom. jërëjëf sëñ Bamba.